yaxam ma laaj la lenn yaxam lan nga jaay ci lu mel na baax juddi mhm. waaw tey ma xamal la kan mooy sama baay ma ayaa lu ma defal lépp si lu baax te kenn waralu ko dul miis gayu imbécile lu xaraamu xaj bi moo woo sama yaay informé ko lépp nee na ma ayaa laay bañ a dajal ci biir kër gi ndax dama rus sama yaay lim ko def ma ne ko ayaa sa mag la xam na ni lii bu doon yow gisee lii du am kër goo gis si ndakaaru njaay ñetteel ba may borom oto yi macha allah or bi macha allah lépp macha allah kon kooku jàppale na ma waaye seen jëkkër dafa toog benn place.